ñetteel mooy aadaabul akli teg yi ni lekk ah teggi ni lekk sëriñ bi nee na teggi ni lekk fa muy tàmbalee mooy bu lekk lu bari boo tiimee lekk ni ñuy tegg na mooy nga mos tuuti waaw am na nag lu xew ci jamono loo xam ne waxuma man naa am du da gis gone goo xam ne day yorub si ngomam bi maanaam toog ci jataay bi di sàqame rek wala toog ci biir classe bi fi ñuy jànge wala ci majalis bi yorub si ngomam di sàq mi tubaab yi de duñ def loolu ñoom doo gis kenn koo xam ne ni day jàkkaarloog nit ndax loolu dafa bokku ci ci nite ci humanité maanaam jàkkaarlu nit di sàq mi élèves yi moom da nga gis koo xam ne day toog ci jataay bi dégg nga dugal loxo bi ci biir saag bi dégg nga daggu mburu boo defee ni mu gaaw dugal sàq mi waat majalis bi it sama mbokki daara yi caaf la ci poos bi lañu koy def bi dugal di génne lekk rek yooyu yëpp ndeysaan ñàkk xam la bokku ciy teggin nañ koy moytandiku kasaalika lekk gu bari tiimu lekk rek jàpp ne moom bii moom doo ko gisaat ca lekk gi ni mu lay jariñi mooy nga mos sa tuuti suñ mbokki jaxate jaxate yi moom ak siise yi dañuy jàpp ne moom ginaar yi moom boo ci lekkee bu baax day baax sa yaram day na baax nanga ba ki nag nga mos sa tuuti moo lay jariñ bu baree dalay lor lekk gu man di teew bu ca wane loo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi am na bis ahlu suffa lu mat juróom-ñaar fukki nit lañ ci saxaaba yi yoo xam ne nii ci jàkk ji lañ dëkkoon mooy way ñàkk yi ko masaa amul lekk wala sarax ñoom nga koy yët bis jot na yonent bi di génn ci jàkk ji naa Seydina Abu rek kar yonent bi di ko laaj ay masaayil yonent bi xool ko ne ko ah xam ci baatin ni kii dafa xiif waaye da ko rusa a wax mu ànd ak moom ba ca kër gi mu jox ko benn koogub soow ne ko bu àggee nga jox ahlu suuf fa ñu naan abubakar uh, abu hurayra nee na bi ma dikkee ci jataay bi fekk naa fa lu mat juróom-ñaar fukki nit kenn ku ci nekk ma jox la nga guux man la acca nga guuxaat man la acca nga guuxaat man la acca dooleel ba nga ne ma amatu amatuma fu ma ko def ma topp mbooloo mi ba ñëpp pare ca saa yu ñu guuxee rek day mel ne soow mi day monte waat lu nangoo jeex ba ma ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko ñoom ñëpp de suur nañ mu ne ko yow nag mu ne ko ah man de joxo ko ma ndigal mu ne ko góoxal mu góox mu góoxaat mu ne ko góoxal mu ne ko góoxaatal mu ko góoxal góox mu ne ko góoxaatal mu ne ko ëmm fu ma ko def yaa rasulallah xoolal ñoom xiif lu mu mën a mel lu mu mën a mel teggi ni lekk yañ daa def waaw ak nañ meloon ci xiif nga xam ne boo ko joxoon kenn rek man ne ah lii daa tuuti xaar mën ne ko fërëx wane ca loo xam ne nii day tuur wala mu mel nangam teggin yooyu ñu doon jëfandikoo ak yonent bi lekk gi lu mu tuuti tuuti mbooloo mi ko war a séq bari bu mu tax nga di ci wane xër lekk gi lu mu bari bari bari bari bari wala lu mu neex neex neex nga xiifoon lool ndànk rek dog day jot nga gis koo xam ne bu ko laay di dog moom danaa la moom timis moom bala ma koy julli moom yàllaa xam waaw damaa xii loolu ko lu muy wax damaa xiifoon koor gi daa metti woon jàpp nañ ne pour nga mën a wooraat suba naanal ndox mu bari pour nga man a wooraat suba lekkal lekk gu bari pour nga mën a wooraat suba te loolu la lay gën a sonal bu subaa <laughs> xamuñu loolu waaw kon ak lekk buñ ci wane ak xiir loo xiif xiif ku la gis ngay lekk bu mu sentir ne yow mii da ngaa xiif bàyyi ma mooy def noonu mooy mel ni lu xiif bu tiimee ngooñ di wane loo xam ne da daa xiifoon wala daa maroon doomu aadama du du defee noonu loolu bokkul ci civilisé wa alam bi anna al xirsa li min mujibaati alxaari wal malaami kuy xéer ci lekk moom war nañ koy yedd bu baax a baax a baax kuñ xam ak xéram ci lekk des ko war a yedd day waralu tàyyeel day warali feebar ay feebar waaw waaw day warali feebar ndax tàyyeel boo yëngatuwut rek dangay feebar lekk gu bari day warali feebar xas bu ko minhu maa yuqimu sulba sëriñ bi nee lekk goo mën tiim lu ca dëgër rek doy na sëkk lu la mën a dëgëral ba nga def say aajo doy na si sëkk noonu ñu ko waxee ci lekk yi noonu lañu ko waxee ci naan da ngay gis koo xam ne buy naan da ngay dégg ni muy naane ndax gu maram wala da dégg ni muy sàqamee foo toll di dégg ni muy caqam caqamee di sàqamee lu tax daa xiifoon loolu duy teggin ndànk ngay lekk ki nga dendal sax mën naa bañ a dégg sa sàqame waaye gars ku ci xiif moom buy sàqami rek da xam ne kii daa xiifoon da nga dégg ma ah yow sooy xanaa da ngaa xiifoon loolu nañ koy moytandiku ci wàllu lekk gi ci kasaalika it ni ñu ko waxee ci lekk noonu lañu ko waxee ci naan booy naan nga naan def ndànk defe ni ko sunna daa waxe guuxu ndox noyyi bàyyi guuxaat waaye boo tegee rek bàyyi ma aw fas wala bàyyi ma ñooy teg seen gémmiñ rek bala ñuy bàyyi ñu màndi ñoom ñooy naane noonu yow nit yàlla ni mu la terale yàlla ni mu la bëgge yàlla ni mu la fonke yàlla ni mu la rafetale ngay def yëf yoo xam ne nii kenn xamul yëf lu mu doon doo ànd ak sa doo ànd sa dignité boobu karaama googu ahsana taqwim googu mu la defal lu ci nekk loo ciy jëfandikoo nga jëfandikoo ko ca na ko borom bi santaane wala na mu gën a rafete kon boobu loolu lañ ci doon wax muy wàllug lekk bu ñeenteel bi damay ragal ne moom tomb yëpp du mat sax moom ndax fukk ak juróom lañu lañ lañ lañ jëloon ca day mel ne waxtu yu sori na lool ca ñaar laa waxagul waaye ñu dem rek ba fa waxtu yam rek ñu yemale ko foofu bu ñaareel mooy ay teggiin ak sa loxo bii nii dabtul yadd ni ngay dabtoo sa loxo bii ba doo ci nekk di fo wala di ci def loo xam ne ni duy teggin loolu moom ñun fii dafee bari dangay gis koo xam ne loxo bi ab loxoom day taxaw di wax ak nit rek di wokkatu rek waaw wala mu jàkkaarloo nit am fu mu téye ci cëram man naa téye sax ay awraam jàkkaarloo nit téye awraam comme ni ko xale yu góor yi defee duy teggin de faw ñoox wala di wax ak nit di fo rek yaa ngi wax ak moom yaa yaa ngi yaa ngi fowaale yor say caabi di yëngal wala yor sab sa wala di fo sab sikkim sax wala di fos say baaraam nit dana nojj booy wax doo bari pos say lox wa yaddaka idbit laa tukassir abada lahwan biha fa innahu aybun bada sëñ Tuubaa neen loolu ayib la kum dal ku ko tàmm na nga xam ne loolu ayib la nag yow sa loxo bi mënoo am na ñoo xam ne mënuñoo toog nojj mënuñoo toog cinq minutes ca seen loxo bi duñ ko dugal fenn da ngay jàkkaarloo nit sax muy taxaw di wax jël baaraam yi def ko ci bakkan bi joxaat la loxo wala mu jàkkaarloo yow lekk na ba noppi jël loxo bi dugal ci kii bi dugal loxo bi def ni ko neex génnewaat wala mu dugal ci poqutaan yi wokkatu wala mu dugal ci biir tubay ji ah bi yéen nag ah, loolu loolu loolu mbiru diine mbiru civilisé la. sëñ Tuubaa nee loolu ayib la de sëñ bi wala tunaawil abadan maalam yajus faidatan biha bi taqribin tafus sa loxo bi daal lépp loo ciy def na nekk loo xam ne nii lu am njariñ lay doon soo demee ba nga xam da ngaa war a wakkut na dem ba doon lu munta ñàkk foo dugg saw yaram doon loo xam ne nii lu munta ñàkk la waaw moom foofu lañ ci yem juróomeelu teggin bi mooy ku la mag ku la mag koo xam ne daa am lu mu sàkku ci yow nga defal ko bëgg nga defal ko <laughs> sëriñ bi nee na ku la mag loolu yónneen mu ngi ci biir gone yi de luñ joxe yónneen da ngay gis sax ku ñu yónni mag ja ko bañal te xamuñu ne am na lu ñuy jàngale foofu bu la yónnee bu la diw yónnetee bañal da ngay gis waajuru koy wax sax ngir ne daa am jafe-jafe ak diw xamoo ne yow yaa ngi xeex ak diw de waaye yaa ngi teg sa doom ci yoon woo xam ne ni du yoon wu baax maa ngi xaar ba diw yónneti la nga dem rek loolu lañ koy dégg waxtu ne yaa ngi xeex ak diw de waaye yaa ngi teg musiba foo xam ne nii musiba naaru lay yaa ngi koy teg sa doom ji foofu da ko war a duma ma la déggatee diw yónneeti la dematoo danga xam ku la mën di yónni demal nit bu la magee lu mu sàkku ci yow danga ko koy defal wa in samixta man yakunu akbara min ka yuxaawilu zamaanan watara ka an yaruma ka an mursalan li xaaja faqdi lahu lillahi tilkal xaaja su sàkkoo ci yow ab yónneen defal lim la yónni ngir jëmmi yàlla doo dem defal ma nàngam def ko ngir jëmmi yàlla sëñ Tuubaa loolu la santaane ay maa ko ëpp xam-xam maa ko ëpp diplôme maay seefam ci liggéey beeg ndax moo la mag lañ la laaj ndeysaan gis naa liggéeykat bu baax boo xam ne ci benn entreprise la nekk daa woo ñi muy liggéey loolu yëpp ne leen gardien bi gardien bi maa bu ko kenn yónneti li tax mooy gardien bi moom moo mag sax borom borom entreprise bi waaye borom entreprise bi diine ju mu am tax na ba mu wax employé ne leen bu ko kenn yónneeti yéen ñii ñëpp mën na leen bàyyi ab gardien dong la fi dafa toog di wattu bu kenn di ko yónneeti ñun nag li ñu baaxoo xam mooy surga bi jànq bi yónnee rek booy yeeg ñëpp a yónni booy kër gi patron borom kër gi day yónni day liggéeyloo maire bi maire bi nga xam ne ab ab ab ab ab liggéeykat la ci biir kër gi walla savoor bi waaw lu tax papaam lay liggéeyal loolu luy teggin de xamul noo koy expliquer nag waaye luy teggin bu juróom-benneel bi mooy teggiin waxtaan comme waxtaan mënut a ñàkk nag sëriñ bi nee na kaay ma wax la ni ñuy waxtaane ni ñuy waxtaane mooy boo toogee ci jaraay bi ku wax lu du dëgg bul na ko waxoo dëgg même mu dee gone la bu la leeree nañ ne lii muy wax dara du ci dëgg sëriñ bi nee na na nga jël méthode yi yi gën a rafet man de yaakaaruma ko woon nii man de jàpp ma woon lii est ce que loolu la waaye jékki-jékki jaar ci digg ba ne ko da ngay nangam di wane na yow dangaa am fit daal kenn du wax lu noonu ci yow loolu ayib la de da gis koo xam ne naan yii diw de moom boo waxul lu dëgg moom ci kanamam dala koy daal di wax duy teggin nag bu waxee lu dëgg am na noo ko mën a jubbantee wala noo ko suturaale ci jataay ba bu noppee loo koy laabire nga laabire ko am na ñoo xam ne moom baat boobu dañu ko tàmm moom dangay ngay nangam da ngay nangam bal nangam bi loolu nag duy teggin wala sax baatu wax lu amut nuñ ko mën a tudde rek xam nga ñun wolof moom ñu baal ma baatu fen nu ne lañ koy tudde naarak ak meew xeet bu ñu ko mën a wooyee rek ca muy tekki lool rek dañ koy moytandiku di ko wax nit waaw yaa mën a naar yaa mën a meew yaa mën a nangam xeeti wax yooyu ñuy wax yooyu yëpp yooyu dañ koy moytandiku jërut nag nga di ko wutal baat bi su ay kii naan ne fen la la tere kon dama naan la yaa a meew déedéet baat bu ne yooyu yëpp yooyu yëpp yi muy tekki dañ koy tere wala taqul li ahadin kadabta aw qulta xayra alxaq aw axtata aw xayraha min kulli shay'in yusqitu walaw sabiyan kaana fa huwa xalatu nañ bàyyee wax gone yu ndaw yi ku wax rek ñu ne ko waxoo dëgg gone kenn du ko wax loolu waraw sabiyan la sëñ bi wax donte tu tànk la bu ko di wax lu mel noonu fa qul lahu lastu kasa aw kuntu muhtaqidan aw innani jahiltu nee noonu nga koy jubante <laughs> su waxee lu noonu ne ko ah yaakaaruma ko noonu de man de nangam laa jàppoon est-ce que jaawale woo est-ce que juumoo waaw wa naxwaha hasa min ibaaratin tasur mu sax sa mustaxsanaatin laa tusi wala tadur nee na daal sa làmmiñ yii boo dee waxtaan na ci tàmmal waxu yiw waxtaan deel wax yiw rek da nga gis koo xam ne day bëgg nit ñi ree tax mu keree loo xam ne nii ay nar dong la dara du ca dëgg waaye bëgg reeloo nit ñi rek tax na mu keree loo xam ne boo demee sax am na ci jataay bi ku ko gëm nañuy tàmmal suñuy làmmiñ waxu yiw wa xawwit lisaana xawlal xayri tafus bihi wa tug fa kulla dayri sëñ bi nee na na ngay tàmmal saw làmmiñ waxu yiw yow daal nañ lay def fu ñu la fekk ngay wax rek aw yiw ngay wax lu dul bu ko partagé doonal nit koo xam ne daal yow aw yiw dong ngay partagé ay tooñ ay jëw ab xuloo yooyu bu ko di jottali ku la ko laajit bu ko wax waaye mën a nettali mën a nettali ba nga xam ne bala ngay kontaan rek ñu laaj la xeex ba nu mu demoon wala xuloo ba nga wax kenn ku ne nu mu saagaak nu mu demee loolu lu baax de ak mbaax mooy da ngay tënku ci ne man daal sama sama principe mooy du ma partager lu dul aw yiw du ma partager audio bu dul yiw bu dul lu wax ci baax rek duma ko partager bul jot lépp xuloo bul nett lépp xuloo bul xeex bul nett lépp jëw bul nettali saaga del nettali diw lu baax la mu wax ca diw melal genre boobu bu diw toogee sëñ Mbàkke Jóob toogee wax lu baax ci sëñ Seexuna boo demee ci sëñ Ousseynou ne ko sëñ Ousseynou sëñ Mbàkke Jóob ni mu baaxee wax ji mu wax sëñ Seexuna waxaat ko ko day tax ñu bëggante ñoom ñaar doonal genre boobu koo dégg mu waxu yiw rek ci keneen rek demal sa kook nga ne ko sii diw de bëgg na la wax na ci yow lu baax de loolu day rattu day indi ak bëggante day tax sëñ Seexuna fu mu gisee sëñ sëñ Mbàkke da koy bëgg sëñ Mbàkke it fu mu sañ sëñ Seexuna bëgg loo dégg nag mu may la ko mu wax ko ci lu dul noona bu ko bu ko jotalee mukk bu ngeen waxtaanee bul capturer ay message di ko wan diw wala di partager ab audioom naan ko entre nous déedéet boo ko ko waxee moom it dana am keneen ku mu ko envoyé waat ne ko entre nous kooku it amaan nag keneen am koo xam ne nii entre nous lay doon pot lamp yi dañuy wax waxuñu de pot lamp musta wax ay garab musta wax ba ba àdduna sosoo ba léegi jamono yonent bi xanaa garab ga waxoon lu dul loolu xamuwaatuñ garab yuy wax mbedd yi waxuñu seen entre nous yi ngeen waxante ay na yem suñu diggante yii kooka it amaat kum yamale seen diggante looloo tasaare xibaar yi ñu nëbbu kon nag del tàmmal saw làmmiñ wax ji yiw am na ñoo xam ne duñ wax lur lu yiw mënoo fexe fexe bañ tasaare la lur lu yiw aw yiw rekk lañuy tasaare tegginu juróom-ñaareel bi mooy tegginu dox ni ñuy doxe moom xale yu góor yi xale yu jigéen yi war nañ ko diglu bu baax a baax a baax kenn doxatu normal rek sëriñ bi nee na wam si li ajli xaajati doon ixtiyaal fal ixtiyaalu jaalibun ila nakaal wala takun multafitan bila talab fa kullu si xamaaqatun nafataada boo dee dox nanga dox doxin wu yiw yiw yiw ñuy jàngale siira nee nañ soxna yi yonent bi bokk na ci ni ñu xàmmee woon mooy ñoom ñëpp fukk nanga nangam mën nañoo jaar fii doo ko yëg niñ doon doxe benn bruit doo ko dégg dara lu yëngu doo ko dégg ñoom moom bokkoon na ci sifaat yi ñu ni melal mooy seenu doxin kenn mënta tox bañ dugg ci kër gi ba dugg seen biir néeg nga dégg dara luy wane ne ñoom dugg nañ ci kër gi loolu bokkoon na seeni melo ñoom waaye foo dugg ci kër gi ñëpp xam ne dugg nañ ci kër gi karaas karaas dox di dem gauche ak droite rek loolu bokkul ci doxinu ku yiw ak di gestu gestu bu bari booy dox di gestu gestu bu bari loo dégg mu yëngu rek nga gestu nit ku yiw buy dox du gestu lu dul aajo nga dégg saw tur ñu woo la mu leer na lañ laa woo wala nga dégg loo xam ne nii munta ñàkk nga gestu nga taxaw waaye di dox di gestu di dox di gestu loolu dox yi ni ku yiw jaar ca mbedd mais góos ne ñëwaat fii ci droite jaaraat ci digg bi jaaraat ne du dox yi ni ku yiw booy dox da jaar ci wenn wenn ŋàll la ngay jaar jaar ca rek di dox doxin wu yiw ndànk ba fa nga jëm fi ne réew yi nga xam ne dañuy bari nit xeet yi Siin Japon yii nii dangay gis du mat ay nangami nangami junni nit yu bokk benn mbedd waaye dox bi day gaaw dox bi day gaaw lool ñëpp yii yëpp yoon bi yëpp ale la dox amul gees yoon bi yëpp retour lay doon amul gees waaye ñun da ngay gis koo xam ne day mbëkkante kii kii mbëkk kee kii dóor ko mbagg kii dóor ko loolu li ko waral mooy ñàkk a yiw ci nu ñuy dox loolu sëñ bi nee na ci ci ci ci maanaam xamaaxa la bokk gàtt xel ci kon li ñuy wax kon ñàkk a ci la bokk sol dàll yoo xam ne fooy dox coquette coquette ji foo toll ci kër gi di ko dégg coquette coquette coquette coquette di yëngatu rek loolu alxuraan da koy tere waaw yonent bi ne alxuraan nee na woon bu ñuy dox nañuy moytandiku lu bokk ci yéen di yëngatu waaw wala sol yére yoo xam ne nii foo toll dégg keleng keleng ji wala li nga def sa bopp bi létt yi foo toll dégg mu yëngu ku yiw buy dox kenn du ko dégg boo yeewoo ci kër gi bay dox ñëpp a yëg ni yaa ngi dox booy dugg ci kër gi ñëpp yëg ni yaa ngi dugg loolu duy teggin bu juróom ñetteel bi mooy sàng say awra col col gu yiw sëriñ bi nee na yow góor gi rikk waaye bu munta ñàkk bu munta ñàkk li tàmbalee sab jumbux ba ci sa bëti woom na yiw lool bu mu seere bu mu dang bu mu yaraax ñëwaguma ci jigéen gi de xale bu góor bi laay waxal bu mu am ay bënn bënn léegi yooyu safaan yooyu yëpp ay am léegi xuma peew lañ koy xuma tubéy yoo xam ne kenn xamul lu muy nuroon dangay gis jiin bu cher fu ne lañ ko foq buy jënd sax mënut a jënd bu normal bi bu gën a bën am am ay bën bënn yii mënoo ko amoo ko booy disco yi loolu la ñuy wax bu gën a xottee maanaam bu gën a ñàng yooyu mooy lan loolu loolu luy teggin booy dangay sol col gu yiw nit ñi xamee sol sa suñ bu baax sa baylaat bu baax sa caay ju baax sa ñetti xaftaan yu dëgër loolu mooy col gu yiw waaye yére yi moom bu mu bu mu rëy nag na na na na tuuti na seere na nangam yooyu du co du colu ku yiw soxna yi moom kenn waxaale ko moom daanaka col gu ñàkk yiw gi moo waral fitna yi am yépp rawatina nag ci dëkk bi rawatina ci xorum bi da gis ku jaar ci kanamu barab bi wala ci kanamu penku jumaa ji col-col goo xam ne nii moom doy na waar boo waxee mu ne dama fiy jaar rek damay jëm mars cey bu ñu xamoon la ca nekk nañuy yiwal col gi wa an sarawilika laa laa taksif abad fa innahu min tarki aadaabin yuad wa azar min alkasfi an albatni kasa ma na surratin wa rukbati lisa da gis góor goo xam ne day toog taxaw ba mu yàgg muy fuddutu fuddutu ba nga xam ne biir beeg jumbox bi day génn wala buy julli bu sëggee di ko ginnaaw gi yëpp day feeñ ah waaye sëñ bi da gis koo xam ne xale yu góor bu ñuy julli bu ñuy rokkoo da ngay gis seen loxo bi ci ginnaaw dañuy téye tubéy ji bu ñuy bàyyi muy rot wala lay feeñ ci ginnaaw la bañ mu feeñ ah ko fi jar la sol nga pantalon boo xam ne nii faw booy rokkoo moom faaw nga téye sa tubay ji nii boole ko ngumi lu ko may rek moom mari de taali kon duy teggin nit day col col goo xam ne ku ne la sëñ Muntaxa ngoog rek lu jar nga yëkkatiwaat sa mbubb da man mën a dem siyaare da nga mën a dem joxe loxo jigéen day col col goo xam ne ku ñu sëñ bi dugg si na sëñ Muntaxa ngi ni nga mën a jeg ne ko ah mbakki doo fa nekk naa abal ma kol yow i eh, abal ma yére abal ma nàngam noonu lañuy soloo ci waxtu yépp sëñ bi ne loolu ci xillatul muru ala bokk ñàkk sol col gu yiw ci ñàkk mbañum ruus la bokk waaw nit day yiw ci ay ak colam di sol xeeti bu bu bu beesut sax na yiw li nga sol bu riisutit na yiw la riis fa yàlla mooy la yiw danga gis koo xam ne yéreem sol seer na lool waaye ak ñàkk maanaa fa yàlla gis koo xam ne yére yéreem sol ak a yomb waay ak am maanaa fa yàlla loolu li koy may mooy ak yiw ñu gaawantu tuuti bu juróom-ñeenteel bi mooy teggi ni nuyoo ak musaafa ak am solo te léegi gaa yi defatuñ ko waaw sawaa sawaa rek la wax lu kenn xamul nakamu nakamu waaw nuyoo dafa am solo rawatina musaafa jox ko loxo ngeen téye kenn ku ne téye loxoom ba mu dëgër waaye man de ku ma jox cati baaram cati baaram laa lay jox man de bàyyi ba ma koy nuyu rek su ma koy nuyu sama cati baaraam yi laa koy jox loolu di teggin ab jullit buy nuyu moroomu jullitam ñaari góor bu ñu nuyoo dañuy joxante danga koy jox loxo ba mu jeex tàkk téye mu mu téye moom it kenn ku ne am lu mu yëg ñu xoolante waxante kàddu yi soo ko bàyyi loxo bi wa salliman na ala lasi xadimta alayhi is alayhi in taadduban talabta wa in yakun minhu ibtidaa salaam faruddu alayhi bil kalaam wa xaysuma saafaxtahu fa makkini yumnaaka min yumnaahu bil mustaxsani sëriñ bi nee na ku la njëkk nuyu fay ko koo gis jéem gaaw njëkk koo nuyu léegi lu xew su ma njëkkatu nuyu duma ko nuyu walla sax gis koo xam ne moom foofu la ayib yam ci moom moom mbokkum jullitam da koy nuyu du ko fay toroxal ko ci biir jataay bi loolu daganut de ak loo ko mere mere daganut ci mu nuyu la loo ko fay amul kenn ko am puwaaru nit nuyu la nga ne du ko fay su la nuyoo xoolal nuyoo ba gën a rafet nga fay ko nuyu bu mel noonu gone yi moom dama naan la sa papa boo ko rombee wala bu la rombee moom ci boppam moo la war a romb yow nga jug nuyu ji ko am na gone gu ma ko doon laaj naan ma waa bu fekkee sama yaay moo ma romb nag man bu ma romb bu ma ko jëkkee romb daal naa ko nuyu waaye déedéet moom bu la rombee yow yaay di dem nuyu ji ko yow yaa war di tàmbali di ko nuyu waxtu wu ne ca boo koy nuyu da ko war a warmaal waru ko jox benn loxo ñaari loxo nga koy jox. bu dee jigéen la it mu sukk ci suuf niñ baaxoo nuyoo jigéen ñi sukkatuñ xale yi bu ñuy jox seen papa léegi benn loxo lañuy ñuy joxe lépp moo am léegi moo tax war nañ leen di jàngal teggin yooyu wala takun naasiha xata yakun huwa lasi bada bi nasin xad yabit man su ma ñëwee fekk sëñ Mbàkke Jóob mu toog ma jox ko loxo sëñ Mbàkke sëñ tey rocc loxo bi man mi ko jox loxo daa war a bàyyi ba ma bàyyi mu doog a bàyyi waaye bàyyi sama loxo bi waaye yaa ngi may bés sa loxo yu wow yi xeet yu ne ngay dégg ñu di ko wax waaw sëñ Mbàkke bu ñëwee fekk ma ma toog mu jox ma loxo man damaa war a ne tekk ba sëñ Mbàkke mi ma jox loxo rocc loxoom waaye da ngay gis xeeti yi xeeti beddi konte yee xeebante yi ñuy nuyoo ñun problème mu nuyoo la jam da gis nit mere nit ca nam ko nuyoo moom ko damaa daje moom mu di ma jee ma suufeel di ma jox cati baaraam loolu la wax di ñun bari na koo xam ne boo ko laajoon loo jotee diw danaa na ma nuyoo ah nañ fonkaat nuyoo bi nuyoo dafa am solo bu jàmmoo doon ab dëkk nuyoo mooy caabi ja ku la nuyu rek bëgg naa juboo yow ku la nuyoo rek ëmbalatu la dara asalaamaaleykum wa rahmatullah ku la ko wax buñ xamoon la ca biir ak la muy tekki ak moom mi ko wax danañ ko gën a fonk bu baax a baax a baax a baax kon loolu mooy tomb bi doon wax ci nuyoo bi ci topp mooy yëglu booy seeti sa mbokk nga yëglu aadaabul istizaan nit boo bëggee mu jox la sa palaas da koy yëglu soo ñëwee bett ko yi fekk ko nam waxee ak yow ubbiwut kanamam tëralu la ah ci yow la de xamoo ban situation nga ko fekk soo bëggee ñu jox la sab cër da ngay yëglu ne bis sàngam waxtu sàngam danaa ñëw soo yëgloo ba mu ba mu permettre la nga ñëw nag bu la wàccee wala joxu la yitte nga xam ne nag ke moom la moom moo la bëgg a wàcce waaye nag moom moo la permettre woon jour tel ak heure nangam nga ñëw soo ko bettee nag ubbiwut kanamam mayu la kanam gu leer nuyu wu la nuyu bu baax ah, lu la dal yow la ndax yàlla moo ne la woon avant ngay dem na nga koo koo yëgal laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ñun nag da fekk koo xam ne ñëw di yëglu ci néeg bi salaamaaleykum jékki-jékki aj bi waa salaamaaleykum xanaa fii kenn dafay nekkut <laughs> loolu yëglooti yow aj nga rédo bi di asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum ba mu ñetti yoon jërul ngay ñeenteel mën ngaa dem am nga droit bañ koo wuyu boo nekkee ci biir néeg bi ku yëglu am nga sañ-sañu bañ koo wuyu te loo ci am benn bakkaar am nga sañ-sañu ne ko demal ba ëllëg waaye fi ne koo doon demal ba ëllëg man kii damaa yëpp lee man maay moromam ma ñëw di ko seet si ma ma demal ba ëllëg lu ma gisati sax te yàlla moo ne la bu ñu leen dellu leen dellu leen ci bu leen ci wax dara loolu day mooy li gën ci yeen wa in turid duxuula baytil xayri fa ahlahu istasin tafus bi xayri sëñ Tuubaa nee na boo bëggee dugg ci néegu kaneen ku dul néeg wala kër kaneen ku dul sa sa sa kër na nga yëglu fa in hum xad usinu fi zaaka fadxul wa illa farji an na hunaaka suñ la permettre duggal suñ la permettre dellul waatal li mooy tegg li bu ñu ko doon def problème du am waaye betteel yi ñu defante ci kër yi mooy mooy waral fekk naa ko ci këram nangam hii moom de bi ma ko fekkee këram damaa bett sax moom de nekk day nangam bàkkaar bi yépp yow la nit booy ñëw di ko seet dangay ngay sàkku bis ak waxtu ay du damaa jaaroon fii ak damaa ñëwoon fii yooyu yëpp amut léegi nag yomb na lool téléphone yi ak nit ñi yëgloo jékki-jékki rek ne baraax kër nit toog rek nag jëmale fu kenn xamut kilifa boo bëggee ñu jox la sa wàccuwaay fooy dem dangay ngay yëglu soo bëggee ñu jox la sa wàccuwaay ku la yëglu ba nga jox permettre bu ñëwee da nga koy jox cëram tomb